bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alamin tey mooy sunu bindu fukk ak juróom ñett ci sunu téere masaalikul jinaan bu cheikh ahmadu bamba radiallahu anhu ardaahu tey noo ngi jël beneen faslun muy faslun fil wirdi bunt bii dañ ciy jàng wàllu wérd sëñ tubaa tàmbalee ko amma ida jahilta sha'na alwirdi fa'lam bi annahu azimu alqasdi amma ida jahilta bu fekkee da nga réere bu fekkee da xamut da xamut sha'nal wirdi mbirum wird da koy dégg te xamoo lu ci aju faalam na nga njëkk xam ne bi annahoo ci naka moom day azimul qasdi aji rëy aji màgg ak jublu la aji rëy maqaama mbir mu màgg la maanaam wird mbir mu màgg la mawqicuhu palaasam fi sharci ci sharia min ajalli mawaaqicil bi mu ngi bokk ci gën gaa màggi palaasi jaamukaay yàlla yi palaasu jaamu yàlla yi xeeti jaamu yàlla yi indal kulli fa képp ku xam maanaam bu ñu doon xool palaasam ban position la am ci lislaam dañuy gis ne position bu rëy rëy rëy la am waaw mawqi ko fi waaye mooy palaas bi mu am rek palaas bi mu am te jaamu yàlla yi dañoo tollawut gis nga julli moo nekk ca kaw ginnaaw tudd baati seede yi moo jël première kon noonu la mel bu ñoo xool place am nag dañuy gis ne place bu diis la am moom moom werd euh, foofu nag dañ fee bëgg a jaare indi nag ay leeral yoo xam ne dana gën a yaatu ci mbirum werd Euh, am na mbokk mu baax xam ko yàlla yokk wér sëriñ Mamoor Amdi ca 2015 defoon na ca ab gëstu bu amul morom waay bu am solo kon daanaka lam ca tënk ci làmmiñu arab manees na ko rek tekki manees na koo tekki ci wolof euh, su ko defee mboolem lu ñuy soxla lu ci ëpp rek mën na caa nekk dana yitteel xëy na werd mbir la moo xam ne ñu bare bari dañ koo réere réere lu ca lu ca aju réere lu ca aju baatu werd ci arab mi ngi firi root maanaam dikk ca barab ba ñuy dikkal am ndox ngir fa séenee root waaw buñ nee warabal maa mooy dikkal na ndox ma ngir root maanaam yenoon ak paanam ñëw ngir root wala naan na naansi na Euh, turu yàlla yi dafa mel ne ay leer la ay géeji leer ak géeji barke ak géeji ngërëmal sunu borom géeji xikam géeji xëy bu lañu géeji xëy bu lañu ndeysaan ku uusuka tasqiini kon turu yàlla yooyu muy subhanallah muy astafirullah muy nàngam dafa am lu muy def ci nit ci wàllu baatin yow mi dëkk nag ne dama bëgg a root si ci turu yàlla yi ngir ma naan ca ndox moomee géej yooyee nga xam ne géej yi xekkami sunu borom lañ géej yi ngërëmi sunu borom lañ waaw kay kon yow da root si ne nga xamee ne soxna si yorpaanam dem ca teen ba wala ca géej ga wala ca rëbina ba ñëw dikkal ndox ma ngir dafa bëgg a fóot <clears throat> muy setal aw yaramam wala setal ay séram wala boog dafa bëgg a naan wala nàngam ci wàllu baatu nit nit ki dafa soxla dunduk zahir ak dunduk baatin boo maree da ngay naan waaye boo maree ci leerug yàlla nag kooku moom da ngay dem ca turi suñu borom ya te alxuraan moo ci jiitu <coughs> kon wirdu loolu lay tekki ci wàllu baat bi bu ñëwee ci li ñu tuddee istilaax nag buñ nee wird am na ñaari déggin wird buñ ko waxee rek d'une manière générale buñ ko buñ ko yaatalee noona dañ naan mooy jullit bi jël ak jaamu yàlla goo xam ne yàlla farataalu ko ci moom moom mu waral ko ci boppam wutal ko waxtu di ko def jàppal loolu gépp jaamu yàlla ngoo xam ne jullit bi da koo jël xam na ne lii du farata waaye moom da koy dundal ay waxtoom nga sëñ bi fii da koo indi ci yi nga xam ne des ci dundal waxtu moom mu jël ko di ci dundal waxtoom jël jaamu yàlla gu ko neex moo xam jaamu yàlla googee day koor mu ne euh, nangam bu jot dinaa ci woor nangam xanaa moo ko tànnal boppam yàlla farataalu ko ci moom ngir bëgg a defaru gis nga kooku ma ngay root moo xam saraxe la bis bu nekk dinaa saraxe aw mburu wala dinaa saraxe tàndarma wala dinaa saraxe nangam kooku ma ngay root loolu wérdu la mu farataal ko ci boppam wala boog julli man daal guddi gu jot dinaa jóg julli juróom benn rakk wala nangam xanaa yàlla farataalu ko ci moom moo ko warlul boppam di ko def wutal ko waxtu loola la ñuy tudde wérd wala boog bi set naa jàng nangam ci alquran wala saaro nàngam dinaa ko jàng nàngam loola la ñuy tudde werd d'une manière générale bu ñu waxee werd rek loolu lépp day dugg ci werd kon nekkul ne werd yow mi wolof bi li nga ci gën a meen mooy nit yor kurusam di tocc toccal déedéet loolu rek du werd loola nag dana dugg ci biir ndax bu dee daa yor kurusam farataal ci boo di wax subhanallah subhanallah subhanallah ma ngay root ma ngay werd ma ngay root loola benn xaaj la ci waaye nag dafa am beneen dégg-dégg mooy wérdu wi nga xam ne nag ahlu tasawuf dañ koy jëfandikoo nga xam ne sëriñ ba ci boppam day yor ay wérdu wutal ko ay chart wutal ko waxtu woo ko war a def ak nangam ak nangam ni ki ñu ne wérdu tiijaan eh, kooko moom dafa am ay yoon wala ñu ne wérdu ashashali wala ñu ne wérdul maquus loolu dafa am ay yoon kon loola ñaari xaaj yooya nga xam ko ca moo tax sëñ Tuubaa ci masaalik bi loolu la wax wa xadduhu inda sawil ifaada shay'un murattabun min al ibaada fi waqtihi mu ne wér di dëgg-dëgg daal bu ñu la ko bëggee xamal bu ñu ko bëggee taarif dañ naan la rek nga jël ak jaamu yàlla joo goo xam ne yaa koy warlu sa bopp di ko defal sa bopp wutal ko waxtu woo koy def loolu daal boo boo koy mooy wérd mooy ci déggin déggin bu njëkk bi ko ak wérdu tariixa nag moom kooka da ngay dem ca borom tariixa ba lam ca bind ak sart yam teg nga jëfan noona nga koy defee waaye doo ko defee doo ko defee nu mu la neexe wedd nag lu am maqaama la ci waa tasawuf ndax dañ koy boole ci seeni ponk Sëñ Tuubaa bi muy lim euh, euh, tasawuf bi muy lim seeni seeni usul da ko caa da ko caa limaale da ko caa da ko caa limaale awwaluha talaasumal kitaabi wa sunnatil muxtaari zi sawaabi wa tarku lahwaai wa tarku lbidaci kadaka tabjilu shuyuu shuyuuqil xushaci ru'yatu acdaarin li kulli xalqi daca rek idaamatul wirde li waccal xaq yow bokk tasawuf nga saxal wird da ko caa da ko caa boole jàngoon nañ ci ginnaaw it mu ne man lam yudim shay'an min al awraadi mudayica al waqta wala boog mudayica al waqti ala tamaadi fala lahu yowmal yowma yujaasi naasu illaa garaamun wa jawan wa baasu nee koo xam ne wutoo dara loo saxal ci wird di ko jëfandikoo waaye nga bàyyi sa waxtu woon noonu rek su dan nga di ko nga di ko paasa ci cànkute nee koo ko day bis ba yàlla di fayanteeg jaam yi dana am lu ko metti lool dana am lu ko metti lool dana ko metti kon ahlu tasawuf dañ koo masa fonk dafa nekk mbir mu rëy ndax daanaka ginnaaw jaamu yàlla yi nga xam ne farata la yi ngay mottalee sa waxtu nag ba dundal waxtu wa ba sa waxtu du dem ci ak neen ah, kon nag mi ngi noonu wérdu da caa bokk wala boog mooy wérd ci boppam sax ndax xeetu nawaafil lépp day dugg ci wérd rek ñu xoolee sëñ Tuubaa mii nag moom bi muy doon ndaw ba ni màggee mësta sàggane wérdu fu mu toll ci ak dundam da ko daan jëfandikoo nii mu koy digalee moom da caa jiitu ndax mi ngi njëkk jële jëlee wérd ci baayam wérdul xaadir ndekam baayam xaadir la woon mu jële ko ca jëfandikoo ko loo yàgg gannaaw baat ku mu yëg ne wérdul xaadir wi am na ca ak jagle dem na ca moom ku mel ne suñu askamara mi nekkoon ndar bi mu demee Mauritanie yeesalaat na ko ci euh, Cheikh Sidé Baba loolu borom euh, addaga nii wax na ko Cheikh Mahmoud Diop nettali na ko ci Irwa bi boo ko jàngee <coughs> waaye. Euh, da ngay fekk ci ay mbindam sax mu di ko tudd am ay jamono yoo xam ne moom xaadir la woon di bind ne yaqulu ahmadul xaqiiru jidda attuubawiyu lqaadiriyu wirda bu ma saan di bind dana kii di wax day mooy ahmad mi nga xam ne ab jaam bu xeebu la di askanoo ci cosaanoo di ci askane boppam loolu ndam lu rëy la waaye nag bu dee ci wàllu tariixa ci wérdu nag wérdu xaadir la yore booba loola ay jamono yooya la woon gannaaw ba mu jël wird Achazali mu ngi ko jël nee ñu ci cheikh Baba ibnu Muhammad ibnu Hamd ci la ko jëlee gannaaw ba nag wird wu muy wu mujjee wird mooy wirdu Tiijaan ci ci ñetti xeeti wird yooyu wirdu Tiijaan donte nee ñu ci kum ko jëlee nag taxut ñu xam ba xam kan moo ko ko joxoon waaye daana ko daanu ko def. nga xam ne jamono yooyu ñett ñooñu la jàppoon ñuy ay sëriñam di wax mashaayixi sayiduna aljilaani wa shazaliyu maahu tijaani ñoom la jàppe woon ay sëriñam marxala boobu moom la ñu tudd al marxala al jawalaaniya maanaam mm, bi nga xam ne sëñ bi mu ngi wëndeelu di wër lépp lum xam ci lu baax rek day jël day jël di ko jëfandikoo ci rafetu njortam boo demee ca euh, téeréem ba tudd bidaayatu suluk dafa wax ne walam azal munsu aqaltu taaliba macrifatan billahi jalla taiba fa jultu bayna alulama wa lawliya bi niyati wa amali wa qawliya lu tax mu ne kay laa yadiica umri ataaba li xusni zannin qaada li ixtisaaba nee na man de bi ma xàmmee sama ndeyjoor sama càmmoñ ba léegi bi ma amee xel ba léegi nga ne xàmme naa ndeyjoor ak càmmoñ fonk lu baax ak bëgg lu baax dama ko mës a bëgg waaw dama damaa yeewu rek dama gimmi rek bëgg lu baax bëgg lu baax bëgg àgg fa góor yàlla yi àgg loolu moo ma yóbbee woon képp ku ma xam ci boroom xam-xam wala muy nit ku baax ñu ne diw am na secret nangam am na wérdu nangam am na ak jagle ci nangam jóg naa sol sama daal dem seeti la ngir wuti loola am ca yéen a ju sell nag waaw képp ku ma dégg ba ci ñim xamoon ñu ne diw nit ku baax la woon waaye faatu na danaan won leen ma bàmmeelam ñu won ko bàmmeelam mu dem ziyaare ji ko képp kom xam rek ndax moom yàlla la bëgg moo tax képp kum kum dégg ñu ne am na dara ci yàlla rek day dem day dem seeti ko day dem seeti ko neen loolu li ma jublu rek ngir xam ne adduna ji bàyyi sa dund ci noonu noonu rek loola day sànq ak dund maanaam bàyyi sa dund ki wut jéem a wut dara loo jàpp loola day sànq sa dund ab jullit daa war a duy waxtoom ba mu fees dell la ma yóbboon ci gaa gaañu baax ñooñee tamit mooy rafet njort rek rafet njort ngir bëgg ca lu baax boo demee ca irwa ak ci yeneen téere sëñ bi nee na sëriñ soosu nga xam dama daan dem di jël ci ñoom eh, ay wér di jël ci ñoom leneen ginnaaw ba bi ma demee nag ba àgg ca suñ boroom ginnaaw bi ma demee ba ba gimmi ba yonante bi salaa salaam eh, tabaarkàlla yeema bu baax ginnaaw bi seetlu naa ne ñooña ma njortoon ci ñoom ne dañoo àgg ba tax ñu man maa jox lool ginnaaw seet seetlu naa nekkete àgguñ a xam naa ko maanaam mi ngi mel ne yow mi xamul dara ci làkku arab nga dem ci benn waaye ñu laa kii ku dégg arab la mu di la jàngal nga di ko dégg lool nga dem nangul ko lool waaye gannaaw ba nag ba nga demee ca université ba àggale sam jàng ci nga doog a xam ne ah man diw mii bi ma xamugul dara ni ma ko nawe woon defe na ku déggoon arab la waaye léegi nii bi ma dégg arab ba xam ko ndekete niveau amul solo <laughs> amul solo waaw nee ñu bare bari ci ay nit ñoo xam ne yaakaaroon ne am na fu ñu àgg ci yàlla ginnaaw bi nag laa doog a xam ne ndekete kat fa ma leen njortoon àgguñu foofa xëy na am na fu ñu àgg rek am na fu ñu àgg sëñ Tuubaa nee na xatan saraftu aama aysasin ila xidmati xayril aalamina dil ila ndeysaan nee na loolu nag ci laa nekk di ca nekk ku ma dégg ñu ne xam nga dara ma dem ci yow ba agsi ci mille lan mille trois cent onze 1311 xam naa du sore 1883 yooyu bi ma agsee foofu nag laa mujj bàyyi lépp nag ñooñu ma doon seeteeg ñëpp rek laa mujj nag am benn sëriñ mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne léegi yàlla rek mooy sama boroom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi moom laa jàppe sëriñ amatuma sëriñ alquran nag laa far jàppe mooy sama wérd loolu dana ko wax ci kanam dana ko wax ci kanam mhm. bi mu àggee ci at moomu nag mooy moom la ñu tuddee aamul mubaayaa amul mubaayaa mooy al marxala ar euh, ci atum ay sasin moomu ca Tuuba ca la waxee woon nag ne léegi mu ngi jaayante li wala fi di tudde jébbalu mi ngi jaayante ak yonante bi sax suñ Tuubaa na ñaar du bind moom jébbalu ci baatub araab bi fu ko bind rek ci yàlla la koy jëme aslamtu ci li rabbin rek la ci jëm waaye bu tuddee jaayante nag lay def ak yonante bi wa sallam foofa la waxe woon ubaayiu lyawma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalu allah al wafa valiltu aabidan qadiman lir rasul min aami ila xaami rahil mu ne tey jii daal maa ngi jaayante ak yonante bi sallallahu alayhi wa kon léegi moo nekk sama sëriñ léegi amatuma kenn benn mbindeef budul yonante bi sallallahu alayhi wa ci ab sëriñ maa ngi jaayanteeg moom ci lan fas yéene takk sama ndigg di ko liggéeyal jàppe ko muy sama sëriñ maa ngi ñaan yàlla mu dimbali ma ba ma mottali ko nag daa di wax ne léegi daal du ma dara dara lu dul ñaar jaamub yàlla laa di taalibu yonante bi di liggéey katam loolu rek laa loolu nag mi nga tàmbalee tey jii muy 1311 bi 1883 ba keroog may wuyu saa borom ci loolu laay nekk képp ko déggee di sëñ Tuubaa nga dégg ci moom leneen kon xamal na loola lu jiitu woon la waaye la tàmbalee fii ba ba may génn àdduna képp ku may seeyal ku ma bëgg a xam seet ma fii mooy lan daliltu aabidan xadiman li rasul ndaal jaamob yàlla yàlla laa jàppe mooy sama buur muy laa ilaha illa allah yonent bi laa jàppe mooy sama yeneen mooy sama sëriñ fas yéene di ko liggéeyal nag lépp lu ma xam ne ci tool bi la bokk rek ma nekk ca di bàyyi kooku mooy sëñ Tuubaa kon loo dégg ñu nettalil ko lu bokk nag lii jàppal moom lii la bind min aami aysatin ila xaami roxiil kon kooku ci la jaayante bi loolu amee nag nee na ci la bàyyee mboolum xeeti wérdu yam jëloon ci gaañi di ko jëfandikoo da koo daal di teg da koo daal di teg nee na yonante bi sallallahu jox ko alquran muy wirdam mu daal ne kitaabuhul azizu saara wirda lii wa nafa anni idaaya tarda loolu nee ñu ma ngi ko bind ca euh, tabarkàlla minanul baaxil xadim mu ne alxuraan day léegi moom da moo mujj nag nekk sama wérd moo mujj nekk sama sama wérd tayit yàlla ci la may dàqale samay noon ci la may alagale sama sama noon yi daane zahara an anna ictisaaman bil kitaab wa bi xadiisi l mustafa huwa sawaab léegi day leer na naññ nañ nañ leer na ma naññ naññ nañ ne lenn rek man ca laa nekk mooy mooy ci alxuraan ak ci sunna su yonante bi salaa salaam amul xam naa ne loolu dong mooy njub gi maanaam njub genn njub moo am huwa sawaab genn njub moo am mooy moy ci alquran ak jàpp ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam uhaacidu llaha ala axsi alkitab bi xidmatin lil mustafa baabi sawaab mu ne maa ngi jaayanteeg maa ngi wëlëranteeg yàlla ci lii may waaj a wax mooy yàlla sa téere bi rek laay jàpp la nag mooy jàpp ci yoonu yonante bi sallallahu te di ko liggéeyal yonante bi nga xam ne bu dee njub benn la muy aw yoonam njub benn la a genn njub moo am mu yoon yonante bi sallallahu alayhi daa di wax nag ne man dey sëriñ see ma njëkkoon di jàpp ku ma dégg rek dem jàpp ci yow ñoom de dëgg la baax nañ de waaye dañoo mel ne ay biddiw waaye léegi nag jant bi ak weeru dañoo fenq te biddiw fuñ naan biddiw bee ko leer booba daa fekk weer ñëwagut wala daa fekk jant ñëwagut moo tax ndegam yonante bi ñëw na mujj naa bàyyi ñëpp nag mooy naa ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam zahida lii tuluu shamsin han nadar ila nujumi fi samaai wal qamar ba ma nekkee ci biddéew daal naan biddéew yaa leer ah, sëriñ si ñoom laay jàpp nangam booba damaa gisutoon yonante bi waaye bi yonante bi ñëwee rek jant bi fenk na kon bu dee ak leer laa bëgg naa ko maa ngi koy wuti ci jant ba kon ranitu billahi bi muhammadin anil asbaabi léegi daal yàlla na ma ci nekk buur benn buur la am muy moom doy na sëkk kii dox sama diggante ak yàlla nag nga xam ne li may lépp lu may def ci yàlla ci moom laa koy jële kenn la du nekkatul ñaar muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam baana li kulli man lahu maaqulu ann wasilati huwa rasul képp ku am xel sax nag boo ma gisee rek danga xam ne man genn kilifa laa am muy Moustapha Muhammad sallallahu alayhi alayhi wa sallama ndeysaan euh, kon gis nga sëriñ bi foofu la foofu la tolloon gis nga mu jógee kon moo tax bi booy jàngal ak dundam dafa am ay maraaxil daa ay tolluwaay diggante bii ak diggante bii lii la woon diggante bii ak diggante bi nga xam ne am na lu mu nekkoon loo xam ne ginnaaw bi da koo bàyyi nekk ci lii loolu koy jàngal dunduk sëriñ bi léegi nag bi nga xamee ne ñii wax ñi mel ne man xoolatuñ loolu dañuy jël lii euh, jël loo xam ne lu yàgg la nga ne sañu bàyyi woon ñu jël ko dóor ko mu bëgg ko mu nekk lu bees kon faaw ñu jàngat ak dundam dunduk sëriñ bi nga la fam ba mu jógee fa mu dal ak gis nga fi mu ñëwaat léegi benn sëriñ la am muy yonent bi wenn wér wérdu la am muy alquran euh, ci diggante boobu marxala bii may wax al marxala ar ruuxiya waaye yàlla rek la jàppe muy boroomam subhanahu wa taala nee na tamit ba mu demee ca géej ga ba mu demee ca géej ga mboolem xeeti wérdee lu mu ca mokkaloon dañ ko koo fàtteeloo ba mu set dañ koo rékki dañ koo dañ koo rékki ba mu set ni ko euh, sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana nettalee sëriñ Basiru Mbàkke tamit indeeka noona ba mu demee ca tukkim ba ca géej ga ba ñuy jàngale irwaan na lim ñëwoon na ca nee na salaba minhul awraada thalatha mboolem xeeti wérdu ñett yooyu mu doon jëfandikoo te jëlee ko ci ay nit ñoom njortoon ñoom ne sañ nañ koo joxe ne dañ koo rekki ci ñoom yorante bi sallallahu alayhi wa sallam nag nee na moo ko joxaat nag yor wérdu jox gu yees nag nga ne kon jëlee ga ko jëlewoon ci ñee ñee nekk ay moom dañ na ñee mooy lan mooy sëriñ si mu ko jëlee woon ni ko da jële woon ci Cheikh Abdul Qadir Jeylaan wala wala Abul Abbas eh, Ahmad Tijaan déedéet ñeneen la ko jëlee woon ñooña nag ñoo ko joxoon waaye nee na yonante bi da ko fàtte looloo lépp yonante bi joxaat ko ko jox ko yees ci ndigalul sëriñ soosu nga xam ne léegi dafa nekk al muqaddam al mutlaq fiiha nga léegi moom wérdi dafa jóge ci yàlla jaar ci yonante bi ci ndigalul ñetti sëriñ soosu muy cheikh abdul xaadir jeylaani euh, abul hasan achasali ak cheikh ahmad atijaani ne seen ndigal yonante bi joxaat kooku nga xam ne léegi kon yonante bi nga xam ne euh, mooy sëriñam moo ko jox léegi wérdu yi mu sañ koo jëfandikoo sañ koo sañ ko joxe moo tax da ko daan joxe da joxe ñetti wérdu yëpp ku mel ne maam Cerno Ibra Faati joxoon na ko ko euh, wérdu Tijaan ak wérdu Achazali ak yeneen sax ak yeneen sax ndeysaan kon loolu moo di euh, sëriñ bi wér wérdu yam njëkkoon a jël ak dem ba mu yàgg mu bàyyi ko ndeke gis na ñekk ko doon jox euh, la mu yaakaaroon demewut noona jàpp ci yonante bi yonante bi tamit dimbale ko fóotal ko lu njëkk la dindi mboolem lu njëkk la euh, wax dëgg yàlla formaté ko waaye defal ko nag loo xam ne ci moom la jógee moom yonante bi sallallahu alayhi ndax léegi moom la jàpp muy lan muy ëpp sëriñam te yonante bi nangul ko ko kon insha allahu rabbi sunu Euh, bind bee di ñëw danañ jéem a ñëw nag ci jéem a ci jéem a jàngat wérdul maquus bi nga xam ne nag moom la sëriñ bi jëlee ca suñu borom subhaanahu jaar ci yonant bi te sëriñ jël euh, loola amoon ca jamonoy Mauritanie ja wallahu taala aalam bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin tey mooy sunu bindu fukk ak juróom-ñeent numéro 19 ci sunu téere masaalikul jinaan bu Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu xamoon ngeen ne noo ngi nekkoon ci faslun fil wirdi nekkoon ci wàllu wird euh, leeraloon nanu baat bi buñ ko waxee li muy tekki ci ñaari déggin yooyu sëñ ba waxoon na ne wirdu palaas bu rëy rëy rëy la am ci lislaam duggoon nañu nag ñëw ci jëmmi sëriñ bi ak jëmmi wird ni mel ci ahlu tasawuf ba agsi woon ci fi ñu waroon a leerale nag sëriñ bi ginnaaw ba mu jaaree ci jaaruwaay yooyu te ba mu ñëwee li ñu tudde ràmpe daa jaar ca kilifa yu baax ya ku mat a tarbiyew ku nekk mu dem fa tarbiyew ko def ko sëriñ ba sunu borom defal ko lim ko defal kon nag euh, tey ñu war a ñëw ci jëmmi wérdu bi nga xam ne nag mooy al wirdul maaxuuz mooy sëriñ bi radiallahu anhu wirdu wi nga xam ne moom la ko yàlla baaxe euh, noongi tolloon ci téere bi ci mawqicuhu fi sharci min min ajalli mawaaqici alqurabi inda alkulli nga ne ñu ngi war a tàmbalee ci waxadduhu inda sawi l ifaada shay'un murattabun min al donte loolu firi woon nañ ko ca biir firi woon ko ca biir kon loolu danañ ci ñëwaat ñu dellu dem xooli sëriñ bi ak wirdul maquus sëñ Tuubaa radiallahu anhu wirdu bi nga xam ne moom lañuy tuddee al wirdul maquus mooy wirdu wi nga xam ne dañ ko koo jox kañ lañ ko ko jox ak fan lañ ko ko joxe waroom xam-xam yi jële nañ ci moom ne wirdu wi day ñi ngi ko ko jox ñaar fukki fan ak juróom yaar ci aw weeru koor waaye ci laylatul xadri ci atum ak sas moo di mille trois cent te bu dee ci ati tubaab yi du sori mille neuf cent trois nga xam ne kon ñi ngi ko ko jox ci weeru koor muy weer wi gën ci weer yi weer wi nga xam ne alquran ci la wàcc chahru ramadan alladi unsila fihi alquran jox ko ko ci guddi gi gën ci guddi yi mooy laylatul xadri loola day wone màggaay gi ak rëy gi suñ bi ko suñ borom tànnal euh, ban dëkk Sarsara ca yi foofu lañ ko ko joxe kim ko njëkk a jox mooy taalibeem bu siiw boobee nga xam ne ñiy gëstu walla wàllu wérdu ñëpp miin nañ ko muy ashinqiiti al allaama Cheikh Ahmad ibnu ibnul Hasan wuldu Hammaad moom la ko njëkk a jox moom mu def mu def ca benn téere bu am solo doon leeral wérdu weeg sàrt yi ni ko ko sëñ jàngale waaw dalilu man raamat dalil fi wirdi cheykhinal muqaddamil muqaddimil jalil muqaddimil nga ne ma nga tàmbalee lidal imaami an imaami thaqalayni an rabbihi wirdun ala kayfiyatayni nee na imam ju màgg jii di Cheikh Ahmadou Bamba day jële na ca imam ju màgg ja nga xam ne moom mooy imaami nit ak jinne te mooy yonent bi yonent bi jële ca boroomam waaw ñu indil ko lan ñu indil ko wérdu woo xam ne ñaari kayfiya la ndax booba li ñu tudde wérdul xaatim booba ne ñu ñëwagutoon ñëwagutoon te mooy xeetu siixaat yi nga xam ne moo ci am kon jox naa la kañ lañ ko ko joxoon ak fan la bam leer ak ban dëkk la woon ak kan la ko njëkkoon a jox werdu yi nag dafa am ay ay siixa ay siixa mooy ay façon ay façon werdu yi moom daanaka benn la boo ci jël rek mooy al werdul maxuus boo ko jëlee nañ la ko sante respecté charte ya rek yaa ngi ca yoon wa waaye dafa am nag ay siixa mais bu doon alquran dañ naan li ngay jàng ban xeetu xiraa la waaw dangay da jàng xiraa boo xam ne naafiya la wala ibnu kathir la wala hamsa la wala kisaa yi wala nàngam waaye nag lépp alxuraan la moom dafa am wérdu woo xam ne dañ koy tudde alxafiif am bu ñuy tudde alkaamil am bu ñuy tudde alxaatim bam joxoon nag sëriñ bee ma njëkk a wax muy cheikh ahmad booba ñaaree rek la woon alxafiif ak alkaamil ginnaaw ba nag bi mu moom téeréem boobu ba noppi wala leeralam yooyu ci la alxafi al alxaatim doo ko ñëw loolu dana leer ci kanam wérdu wi nga xam ne moom la ñuy wax alxafiif loolu aw turam loolu dàkkantal rek la waaye nu tudd mi ngi tudd alxizbu rafi alladi min anniiraani xirzun mani wali duxulil jinaani azamu shafii noonu la tudd ndaw tur wu maanaam dog boo xam ne dog bu yëkkatiku la wérdu ba tey dañ koy wax ab dog dog bu yëkkatiku dog boo xam ne mooy wérdu woo xam ne dalay aar kaaraange gu dëgër la ci mboolem xeeti sawara yi waaye te wérdu la woo xam ne mooy dog la boo xam ne bokk na ci yi gën a màgg gën a gaaw ci ràmmu nit mu mën a tàbbi àjjana loolu mooy di aw turam mooy aw turam woowu nag mooy wiñ ko njëkk jox jox boobu la jële ci laylatul xadri ca sarsaara ni mu ko njëkk wax ama shahid naa karaman ama shahid naa karaman mooy aksasin mille trois cent vingt et euh, te nee naa la mooy tolloog mille neuf cent trois ca Mauritanie sëñ bi nag nee na ma ngi ko jox xam nga loolu ci weeru koor lool waaye weeru koor ba dafa jeex ba njugg ci weeru kori dégg nga ajjuma ja nga xam ne mooy juróomeelu fan ba ci la ko sëñ Tuubaa nag ci kori wa doo ko jox taalibe yi wala boog mu doo ko jox naaru naar boobu yi ñu la waxoon moo tax naar ba ma ngay way naan ab abrazahu aama shahidna karama xaamisa shawaalin gis nga juróomi fan ci weeru shawaal xafiifan euh, salima ndeysaan kon mi ngi noonu kon wérdu bu njëkk wi noonu la tudd wérdu ñaaral wi ñu ngi koy dàkkantele alkaamil waaye loolu du aw turam turam dëgg-dëgg moo di al wirdu al maaxuudu min allahi bi waasitati rasulihi sallallahu taala alayhi wa boobu moo ci tegu maanaam siixa bi wérdu nee naa la benn la waaye ay xeet la nag répétition bii nekk ci biir ak bii bii da cee ñëw bee du ci ñëw bee du ci ñëw ndeysaan weddu woo moom noonu la tul loolu mooy turam dëgg-dëgg ñu koy dàkkante la alkaamil booba moom ba mu jotee bu njëkk bee bañ ca tegee am at rek kon 1904 la jot bee nga ne kon mu ngi ko jot ci 1322 bee dañ laa waxoon 1321 ci gàddaay gi bii nag 1322 am at la ca teg si siixe bii ñëw boobu lañ ko ko jox radiyallahu anhu boobu ci wan weer la ñu ngi ko joxe ci weeru gàmmu ci weeru gàmm moo tax waykat ba ne lil kaamilil muxraji aama baksasi te moo di 1322 asila mawlidil bashiril xurashi waaw ci weeru wala génn kon ñaari yëpp ñaari siiga yooyu mu ñaari xeetu njàngin yooyu yëpp ci Mauritanie la ko la ko la ko jote ñaar yëpp ci gànnaar la ko jote wérdu ba ca tegu maanaam siixa ba ca tegu mooy wérdu bi ñu tuddee alxaatim boobu nag moo mujj ñëw moom bu baax a baax kooku aw turam mooy lan moo di al wirdul xaatim al maquudu min allahi bi rasulil xaatim loolu mooy aw turam dëgg-dëgg moom nag nee ñu moo gën a oyof maanaam moo gën a gàtt dañu mel ne koo xam ne nga am ay soxla boo doon jël nga jël boobu mooy gën a mooy gën a mooy gën a jàppandi booba nag ginnaaw ñaariyee biñ ca tegee ab diir biñ ci tegee ab diir nattaliwuñ ba xam diir ba nu mu toll waaye ab diir daal mooy xaw naa sore booba lañ ko ko lañ ko ko lañ ko ko jox booba lañ ko ko jox ndeysaan nee ñu sax na boobu sëñ Tuubaa ñu bare bari ci ay jege ñaar ñi ko gën a jege ku mel ne sëñ mët li bi ñoom dagga nag ñu bari ci ñi ko jege nee ñu booba la leen daa jox mooy wérdu woo di alxaatim waaye yépp nag mi ngi tudd al wirdul maquus yépp moom la tudd moom la tudd loolu ñu bàyyi ci xel euh, su ko defee yan ñu tudd lenn ci ay njariñam yenn ci ngëneel yi nga xam ne yàlla def na ko ci wérdu wi te lépp ñu jële ko ci sëriñ bi bokk na ci njariñ li mooy yitte ji ko sëriñ bi joxoon wérdu wi sëriñ bi dafa amoon yitte lool ci ñu jëfandikoo ko waaye ba noppi nag sëñ bi daa ñaanal képp ku koy jëfandikoo loola rek doy na sëkk mooy ñaanuk sëriñ bi bi mu naan okutub liman axaza wirdi yaa karim mustaamilan bihi sawaaban sawaaban laa yarim loolu sëñ bi doon ko wax ca xasidaam gu siiw ko wama kaana allahu li yudia imaanakum kon ndegam sëriñ bi dafa ñaanal ne suñ boroom na nga bindal tuyaaba képp koo xam dafa jël sama wérdu wii di ko jëfandikoo na ko jox yool boo xam ne du dagg kon bokk na ca njariñ ya mooy am nga ñaanuk sëriñ bi da dugg ca biir dangay dugg ca biir am na fu mu waxee ne anna wa anna man daawama alayhi laa yakunu shaqiyan ku saxoo wérdu wi kooku moom texee di génn nga ca bal yakunu ala xayrin wa aafiyatin muminan musliman muxsina képp ko ko saxoo da ci aw yiw ngay nekk ak ci jàmm da nekk dëgg dëggi jullit waaye da nekk dëgg dëggi dëgg dëggi mumin dëgg dëggi nekk dëgg dëggi muslim mooy ku joxe boppam ku jox boppam yàlla waaye nekk dëgg dëgg nag koy sellal ngir jëmmi saa borom subhanahu wa taala subhanahu wa taala tabarkàlla kooka sëñ mët li mu jóg dagana bi muy téeréem boobi ixnaul adim fi xabaaya awraadil xadim ca ko def radiallahu anhu yàlla ko yàlla fay werdu wi nag amul werante ne moom képp ku ko boo déggoo sart yi ñu ci teg ku ko jëfandikoo da nga xam ne kooku xaw mu nekk dëgg dëgg jullit moom mënta ñàkk képp ku koy jëfandikoo matale sart yi buñ la waxul dara boo ko xoolee nga xam ne dëgg dëgg jullit nii la war a mel dëgg dëgg jullit kooku moom faaw mu am ay ngëneel bokk na ci ngëneel yi am na fu mu waxee ne inna man wawaba alayhi maa surutihi yadxulu ljannata bi geyri xisaabin wala iqaabin wa yamnacuhu allahu min almakaarihi fi dunya wal axira wala yaqruhu shaytaanu almarid wa yakfi hada alwird min alsharafi annahu la yugni anhu wirdun wa yuxni an kulli wirdin sëñ Tuubaa ne képp koo xam ne da ngaa taqoo di def wirdu yi respecté sart ya sart ya nag nekkul lu diis ne ñu bari di waxe seytaane moo ci dugal ay pexem rek nee na kooku dana dugg àjjana te kenn du ko xisaab kenn du ko mbugal te it eh, yàlla dana ko musal ci mboolem xeeti bon boni adduna ak bon ak ak musibam adduna ak musibam àllaaxira te ku koy jëfandikoo seytaane mu bon mii du ko jege mu ko jege tayit booy jëfandikoo wérdu bi da nga am tuyaaba yi jëfandikoo wérdu yu bokkut ak moom wérdu yu seex yu njëkk ya ndax sëñ bi daa jël dañoo jël lépp dëxëñal ko ko ci biir ne la kuy jàng alquran gëm ko mi gëmaale nga mboolem tawriit ak injiil ak téere yu njëkkee yépp boo gëmee muhammad sallallahu alayhi wasallam gëmaale nga yonante yépp gëmaale nga te boole woon gëm naa xiisaa képp yem ci su baa kon sa ngëm day des ndax da ngaa weddi yonante bi sallallahu alayhi wasallam wala nga weddi yeneen yonant kon boo ko dee def rek mel na nga yaa ngi def yeneen wérdu yi moo tax sëñ bi daa wax naan képp ku nekkoon ci wérdu woo xam ne borom daa wax ne ko mel ne Cheikh Ahmad Tidiane yi na képp ku bàyyi jàpp sama wérdu ba yàgg nga bàyyi ko mutlaxan loola nit ñi duñ ko ci boole woon ku ko bàyyi waaye dana ko wax ne moom laa la too waaw waaw sëñ nee na déedéet Cheikh Ahmad Tidiane yi lam def ci doom fii moom it wérdu yi nga xam ne moom lañ ko jox dañ caa def mbóot maag secret ba ba noppi def ca nag yoo xam ne maga nga fee nga ne booy jàng lii nekk fii da am na lu nekk foofu luñ ci jëlee mu ñëw fee nee na nee na lu mel noonu bul ko ragal bul ko ragal déedéet ndax ndax bàyyi googee amut bàyyi googee amut am na fu mu waxee ne man axasa ba tey maa ngi ci ngënee li wirdi haada yantafiu bihi intifaan laa yura li koo xam ne dangaa jëfandikoo wirdu wii da nga ciy jële njariñ loo xam ne mënoo koo amee feneen <laughs> mënoo koo mënoo koo mënoo koo amee feneen moo tax sëñ basiiru ne woon fa in axasta wirdahu axasta wirdal jamihi laa taxaafu kapta nee boo jëlee wérdu sëriñ bi jàppal na wérdu yi yëpp yaa ngi ko yore kon nag euh, tëkku gu metti googee yenn borom wér di tëkku bu loolu bu ko tiit ndax ñoom la ñuy wax bokkut ak yow li nga def ah, bokkut ak bokkut ak nga def mi ngi noonu wérdu yi nag ñu ngi koy def suba ak ngoon am na ay muxtaar ak daruur yi waaye loolu la ca gën mooy euh, kalaa koy jox mu leeral la yenn yu sew sewaan yi waaye ñun dañuy tudd rek yi nga xam ne moo ci gën a moo ci gën a moo ci gën a mag moo ci gën a mag tabaarkàlla euh, liñ ci yokkaat mooy lan moo di charte yi ni ma ko waxoon léegi ñu baree bari la leen tiital mooy dañ naa man duma jël wér du xuus ndax awuma jot charte yi daa diis nangam loola seytaane moo koy def loola ñu bari ci nun ba ci jànkati xam-xam yi borom xam-xam yi sax dangay gis dañ koy bañ a jël ngir ne su ma ko jëlee duma ko du ma ko duma ko respecté ñu jàng sart yi ñu dégg ba xam euh, sart yi ba ca njëkk mooy na ko jël ci ndigal bu ñu nee isnu nag isnul xaas lañ bëgg a wax isnul xaas doone sëñ mat bi joom daga na la mu waxoon ne wérdu sëñ Tubaa jox na ko jox na ci ndigal ñëpp loolu nag isnul aam la isnul aam waaye ngir nga ci ko mel ne sëñ Mbàkke bu so moom ba ko ko sëñ Muusaa laajee euh, dana ko dañ koy jël ci dañ koy jël ci ndigal maanaam dangay dem ci koo xam ne am na ko tan kooka moom am na ci ndigal ba noppi am na ci am na ndigalul jël ko kooka dañ ko ko jox ci ndigal ba noppi jox ko ndigalul mu mën koo joxewaat loolu ñaari ndigal la weddu mën nañ la koo jox ngir nga di ko jëfandikoo loolu doo nga man mën nañ la koo jox nag nga di ko jëfandikoo ba nag boo gisee ku ko yittewoo laaj la ko nga gis xam ne yeeyoo na ko nga jox ko ko ñaari yëpp mën naa nekk mooy ñaari mbir kon sàrt bu njëkk bi mooy na nga ko jële ci ginnaaw ba ba nga amee isnul am mooy xam nga ne lii moom sëñ bi joxe na ko ñépp ko bokk nga dem jële xool na koo xam ne am na càlla la nga dem ko ci moom nga dem jële ko ci moom noonu la ko sëñ bu so euh, leerale woon tabaarkàlla euh, léegi nag ñaareelu sart bi mooy lan xam nga nee naa la na nga ko jële ci ndigal ñaareelu sart bi mooy ki la koy joxit na ci am ndigal moom na am ndigalul di ko jëfandikoo am ndigalul joxe ko nga xam ne day am càlla la man day am càlla la misaal boo demoon ci suñu abdourahman may joxe misaal rek mënoon naa tudd ñu bari say abdourahman jox la ko say abdourahman ne la man de sëñ abdul xudóos moo ma ko jox say abdul xudóos maam cerno moo ko jox maam cerno sëñ tubaa moo ko gis nga am nga càllala la te ne wi jàpp nga ci buum ga jàpp nga ci buum ga ku ka ko ko jox ka ko jox ka ko jox sëñ Tuubaa ko jox jàpp nga ci càllala gi ndax nag man tawassala bi waasila wasal ku jokk ci ku jokk nag dangay daal di àgg da ngay daal di àgg kon loolu mooy ñaareelu saat bi ki la koy jox am naa koo xam ne daa jekk-jekk jël wér di ko jàng ne da nga mën a jënd ko rek ci jaay ko téere di ko jàng nee ñu kooku rek dana ci am tuyaaba ndax li ci nekk lépp ay subhanallah ay nangam tudd yàlla julli ci yonante moo ci nekk waaye nag secret ba dëgg-dëgg nee ñu kooku moom du ko du ko du ko du ko mën a am kooku du ko mën a am tudd naa ci ñaar na ko jëlee ci ndigal ki la koy joxit na ci am ndigalul man koo joxe ak man koo jëfandikoo ñetteel ba nag mooy nga di ko jàng ci waxtoom waxtu yi nee naa la suba la ak fekkee da nga faat ngir da amoon ay yitti wala nangam waan nga koo fay hmm. yi ma wax gu moom xam nga ne jëfewut ñu ko mën a joxe bari nañ lool te jàng gi eh, nga julli suba ba noppi jàng ko julli eh, tiwis ba noppi jàng ko wala takkusaan ba noppi jàng ko suba la ak ngoon boo jullee suba ak julli eh, takkusaan loola diggante bu gàtt mën ko ko jàng jóge fa mën ko ko jàng jóge fa ba ca tege mooy lan ma ñeenteel ba mooy lu bon bon na nga am dogu alxuraan booy jàng waaw xanaa lii bu ñu la jàngulutoon ab sart xanaa ab jullit moom war war naa góor-góor ba am dogu alxuraan bu muy jàng même bu fekkoon ne jëloo wér du jëloo dara xanaa da nga jàng alxuraan kon kon ban diis moo ca am bii nag dañ ne qadra taaqa wal imkaan loo man rek sa kem bu dee bis set mën ngaa jàng ñetti isib bul ko xeeb kaman juróom bu mu ko xeeb kaman benn bis set daal wutal dogu alquran booy booy jàng waykat ba nee na shurutuhu tilawatu alqurani bi xasabi tooqati wal imkaani kem sa kem kàttan rek loolu mooy ñeenteel bi juróomeel bi mooy lan mooy bu dee góor la bu dee góor la nay julli ca mbooloo bu ko mënee na nekk ca jàkka ja bu amul ngànt ba tey loolu tamit jullit loolu même jullit bu jëlut wérdu war na koo def kon nag bi moo andiwu lu bees lim lay sant nii lépp dañ la koo santoon moo tax bu fekkee da ngaa jàpp ne yii daa dis ba tax nga bañ a jël bañ a jël wérdu day mel ne kon da ngaa bëggut a jaamu yàlla daanaka rek ndax lii mu a sant nii même ba nga jëlagul wérdu lislaam naka jekk dala koo santoon kii wérdu kay dala cee bëgg a tënk ngir nga baax ngir nga baax mooy nga góor góor ndax borom xam yi ñu bari nee ñu ku mën a dem ca jàkka ja ji te defu ko ah, am am na ñu bari ñu ne ak julleem du wér donte lañ gën a jàpp nag mooy ak julleem dana wér ndax bu dee masab Malik julli ca jàkka ja nekkul waajib nekkul loo xam boo ko defu da ngay am bàkkaar waaye nag tuyaaba ju bari dana faat moom kon bu dee góor nay jullee ji ca ci mbooloo lañ wax nag mbooloo même boo nekkee sa kër am mbooloo baax na waaye la ci kër mooy nga dem ca jàkka ja kon loolu mën mëne si ko tuddalu diis loolu mooy juróomeel ba juróom benneel ba mooy lan juróom benneel ba mooy saa yoo jullee ba noppi nga naafila fukki rakka ak ñaar rakka bu nekk nga tari ci robo loolu nag mooy li ñuy def weeru koor lii nag mooy ku mokkal alquran moo ko man ku mokkal alxuraan te lii yow mi mokkal alxuraan benn da ci am am nga tuyaabay naafila waaye am nga tuyaabay garde sa alquran kon yow jël ji nga jël wérdu wi moo la dimbale ba doo fëtt alquran ndax yow li gars yi di def weeru koor yow bi set nga koy def yow moom doo ma sa fëtt alxuraan nga boole ceeg na tuyaaba ji nekk ci jàng alquran ak naafila ak naafila bu fekkee koo xam ne dafa mokkulut alquran nag mu xool lu mu man na def fukki rakka ak ñaari bu ci tari qul huwa allahu wala lu mu man ci alquran mu tari ca loola mu tari ca loola fukki rakka ak ñaari nag mën ngaa jàpp ne daa diis waaye xoolal li ngay def si sa téléphone bi nekk ci téléphone ñaari waxtu seetaan ay tiktok seetaan nangam di ko yëg sax daa fekk ne saytaane dalaa man ba ba ñaari waxtu nga mën koo def ci téléphone te doo ko yëg waaye ku la jëlliloo ku julliloo tuuti rek nga ne nga ne dafa diis nga ne dafa diis ndeysaan kon loolu ba tey mënta ñàkk ashratu arbain bi ashri rakaat la budda minha lil ishaai taabiat lil ishaai taabiat sa lii mooy sart yi lii la ñuy wax naan daa diis du ma ko jël léegi boo déggee li ma la dama ne la léegi lii xoolal lii kan moo koy def xoolal lii kan moo koy def képp ku koy def ay jullit bu wér lay doon jeexagut nag sart yi jeexagut yii mu tuddagoon rek ku koy def da nga nekk jullit bu wér léegi ban moo ca tegu loolu mooy euh, bi ci tegu mooy lan mooy mulazamatu ahli taaxa mooy werdu yi boo ko jëlee ñi ngay àndal dañuy noon ay nit ñoo xam ne ay nit ñu yiw la ñuy doon <laughs> waaw loolu kay wax yàlla jullit bu nekk sax waroo ñu wax la ko àndandoo ay nit ay nit yi safaan di tooga ñoo ci jotaay ñuy dund lee yow ngay dund lii mënta nekk da ngay ànd ak ñu baax rek ñuy jàng wala ñuy waxtaan ci lu baax loolu nag tekkul na ngay dem seeti ñuy ñu dëdd adduna kese déedéet même bu dee commerçant bi mën nga ànd ak moom waaye na yiw rek bu nekk koo xam ne da lay xëcc di la ñoo di ci déedéet si zimu man laa isaalu aabida li rabbihi mu ngi noonu sa àndandoo nga koy xe mooy loolu mooy juróom-ñaareel bi juróom-ñetteel bi mooy da nga xam lu lépp lu la war ci ay àtte maanaam téye sa bopp nekk ab jaahil mënta nekk saa yoo jëlee wérdu wi da dem xoole lépp luy sa farata te sa wérdu wérdu wi day fekk la la yàlla digaloon moom mu ñëw bëgg la tënk ngir lan ngir nga gën jëfee ko hmm. taallumu maa yajibu ala al mukallafi min al aqaidi wa ahkaami taharati wa salaati wa ma wa ma walaha da ngay dem xam lu ji say farata gën ngaa néew man ngaa bañ a nekk borom xam-xam bu mag waaye nag say farata moom na ko xam xam nañ jullee xam jàpp xam na lu ci nekk nga xam la ca wér la ci la mënta ñàkk nag la ca des nag boo dee def ba la ngaa def laaj ba tey baax na juróom-ñeenteel bi mooy lan mooy bépp bakkaar bu mag da koy bàyyi ba noppi nag bu dee da koo jotoon a def nga tuub ko bàkkaar mag jëw fen ngistal njaaro nekk jigéen ju wër nekk nangan bari na da koy bàyyi léegi mbokk yi xool leen lii ndax lii daa jafe ndax léegi da ngay bañ a jël werdu yi léegi dëkk ci bàkkaar yu mag de kon werdu yi day ñëw ngir tëj la fex ba li yàlla di tere mu génn la ca tënk la ca ne la doo ko sañ a def fex ba li yàlla santaane mu ñëw tëj la ca ne la mënoo koo ñàkk def lii képp ku koy def bàyyi bàkkaar yu mag yi bàyyi yu mag yi xam loo say farata di ànd ak nit ñu baax ñi di naafi la fukki ràkk ak ñaar eh, dégg nga di jullee ji ci jàkka ja di jàng alxuraan ah di jàng wér di wii te wér di mooy ay subhaanallah ay nanga ay nangam waaw nooy def ba doo baax ku ca nekk kay wax dëgg yàlla ku ku ku ñu yaakaare ci yow ak ñaan gu nangu lay doon ngay doon kon loolu mooy sart yi nga xam ne mooy sart yi tax wérdu wi wér boo ko jëlee te respecté wu wérdu wi am na yeneen sart yoo xam ne day mottali sart mottali lañ ko tuddee ba ca njëkk mooy lan mooy booy saa yooyu jëfandikoo wérdu wi nga yéene ñaan yàlla mu tibbal la mu tibbal la ci yiwu rëy bi mu defal sëñ bi maanaam barke bi mu ko defal ak leer gi bi mu ko defal nga nga yéene suñ borom tibbal la ci imtidaat ba ca tegu boo koy jàng nga ànd ak laab booy wérd ndax fi ne wérdu gi nekku ne boo koy jàng laab daa nekk mënta ñàkk déedéet nit mën naa wérdu fekk du yor njàpp waaye nag nga yor njàpp loolu da koy matal ñetteel ba ci bi nga xam ne da sart yi da koy mottali mooy lan mooy boo ko mënee nga jublu xibla bu fekkee amoo ngànt ñeenteel ba mooy booy jàng wérdu yi nga concentré wu bañ a déglu leneen wala ngay xool leneen wala ngay fos sa téléphone wala yu mel noonu juróomeel ba nag mooy boo ko mënee weer wu nekk nga woor ci ñetti fan boo ko mënee boo ko mënee kon loolu mooy loolu mooy loolu mooy wérdu wi ndeysaan boroom xam-xam yi ñu ngi werante ci ne waaw ndax léegi boo nekkee bala ngaa nekk mu jël wérd dafa nekk ab charte maanaam lii tax sa taalibe mat ndax dajaa bokk jël wérd waaw wala déet am na ñu ne déet am na ñu ne waaw ku mel ne sëñ am Hamdi moom dafa jàpp ne tey indi na ay dalil dafa jàpp ne jël wérd wi charte la ndax lan ndax jël wérd charte la ci ahlu tasawuf te sëñ Tuubaa ci tasawuf la bokk Sëñ ba muy def maxaalixu ñenam dane ba muy lim dane ida idaamatul wirdi li wàccil xàq hmm. idaamatul wirdi loolu dafa bokk ci waa tasawuf dafa bokk ci seeni sart ñaareel ba Sëñ Tuubaa am na fu mu waxoon ne amma amma taalluqu fa yaxsulu bi axsil wirdi sawaun saaxabal xidmata aw lam yusaaxibuha aw lam yusaaxibuha loolu ma ngi wax ca almajmuca majmuwa ba nga xam ne dañ dañ def ay laaj ak tontu bañ ko ko laajee maanaam aju aju ngir nga aju si ab tariixa dañ ko waaw loola nuñ koy defee mu ne aju nga dey mi ngi amee ci jël wérd moo xam ba nga jëlee wérd ba noppi yaa ngi kooka sëriñ ba wala liggéeyaloo ko waaye moom day amee ci jël wérd ñetteel ba moo di lan mooy di sëñ Tuubaa bi muy leeral ab dëgg-dëgg taalibe mooy kan dana taalibe mooy koo xam ne sëñ ba joxe su mam tisaalu amri yi xay su warat bu sëñ bi joxee ndigal da koy da koy jëfee ah léegi nag ndax sëñ Tuubaa joxe na ndigal ci wérdu waaw wala déet tontu li mooy waaw tontu li mooy waaw waaw ah, kon boo ko jëfe boo ko jëfandikoo ah est-ce que kon la sëñ Tuubaa leeraloon ne murit mooy koo xam bu ndigal jëfee da bu ndigal rotee da koy jëfee ndax doo ca génn sëñ Tuubaa digal na murit dañu jël wérdu wi soññ leen ci soññ yu méttee méttee métti sant leen ko ba mu leen koy jox da leen ko wax na ngeen ko téye na ngeen ko téye bu baax a baax a baax a baax a baax sëñ bi ci sëñ bi ci moom daana ko jëfandikoo di ko jox ay taalibeem di ko jox ay taalibeem diiru bi mu nekk ci àdduna ah, ah, borom ah, nafaxaatul miskiya nafaxaatul miskiya na bu mu ne ko jox waxaala lanaa sayxunaa wa wasilatnaa nee sëñ bi dafa ñoo wax ñu xiina ataana haadal bi mu ñu jox werdu wi daa wax ne ataytukum haadal wird jox naa leen werdu wi li wajhi llaahi taala ngir yàlla fa xuduuhu li wajhi llaahi taala al kon nag jël leen ko ngir jëmm yàlla su xaala topp mu yokk ca ne xuduuhu bi quwwatin na ngeen ko jël bu dëgër na ngeen ko jàptee bu dëgër loola santaane wa man kaana minkum indahu wirdun qablahu wa qadara ala jamcihi maahu fa huwa nuurun ala nuur wa in lam yaqdir iqtasara ala haata alwirdi sharif ku ci yoroon weneen wirdu yor tey jaadu yor nangam te gis na mën ngaa boole ñaari di ko def nee na loolu leer ci kaw leer la koo xam ne nag mënoo leen a boole kon yemal ci wirdu wii ma leen jox kon nag gis na sëñ bi da koo fonkoon euh, jox ko yitte ju rëy a rëy rëy nga xam ne tabarkal la kon daal lii moo aju ci wàllu wirdu wi nga xam ne mooy al ma maxuus léegi nag dee su ko jëlee ci mbedd ku ciy laaj euh, wala nga ji kii dara da dem ci sa kilifa su ko defee nga laaj ko mu jox la ci ay tegtal yu gën a wóor kon insha allah bu nu dellu see doo ko jàll ci way yi waxadduhu inda sawil ifaada shay'un murattabun min al ibaada dëgg-dëgg wér wérdu daal mbir la moo xam ne jëf ju baax joo farataal sa bopp di ko def wutal ko waxtu loolu rek la wallahu taala aalam